salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. bi maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. man maa ngi tudd Daay bu Mbuub. da suivre waaw maa ngi tu tuuti rek tuuti rek tuuti rek waaw waaw tuuti rek. yaa Sénégal. waaw Sénégal ah sunu équipe la il ñu supporter ko. naka ah, di leen ñaanal yàlla dogal ñu am ndam li indi coupe bi fii loolu daal la ñuy ñaan. naka nga gisee équipe bi ndax joué na deux matchs naka nga gisee match. waaw gis naa ne tane na daal. Euh, c'est mieux quand même c'est mieux mais euh, yàlla baax na yàlla bëri na sutura parce que football léegi logiqueul xam nga dañuy def di xam nga lu dul ñaan rek am sens bi quoi sens bi daal la am pour ñaan ko ko bu ko amee rek sant yàlla alhamdulilah loolu la quoi. changement war naa a seen match bi contre changement bien sûr changement war naa mën am moom. vraiment côté. Euh, fu mu toll nii nag bu fekkoon ne mën nañ changer côté. Euh, nu mu tëddee sax euh, Diao Balde côté boobu daal moom xam moom neexuma hmm. Diao Balde moom saa wul dara war a noppal ko tuuti. kon daal boo sañoon ñu teg ko rek muy. daa trinqué kooku. kan mooy sa joueur <laughs> xam na ko kay. ya Casasien bi. Ah. kooku kay yi moom rek dama koy ñaanal mu gudd fan lool am wér yàlla dogal xam nga li mu bëgg xam naa ne moom ku bëgg la dafa bëgg moom dafa bëgg bu fekkoon ne ñëpp def nañ ni moom kon macha allah billaahi moom moom dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko kattan bu mu mën a joué ba egsi fi indi fi coupe bi daal moom coupe bi bëgg yéene naa ko moom vraiment bëgg naa yéene naa ko yéene naa ko trop bëgg naa mu indi ko daal macha allah. Uh-huh. Euh, nga bëgg ñu door Malawi tey. tey bëgg naa ñu door leen 4 ah bien sûr 4 kay. Malawi day joué de mbaa seetaan nga. ñun tamit dañuy joué chance la rek yàlla na yàlla dogal ñu am chance bi chance la rek <laughs> nest <laughs> loolu la rek dañuy ñaan yàlla yàlla dogal euh, ñu jël ndam li Sénégal yàgg na jouer coupe d'Afrique mosu fi indi coupe d'Afrique mais a toujours l'espoir yàlla mën na am xama surprise bu xam te ni daf ñu koy tegal ñu indi coupe bi yàlla baax na. jënd nga kon ay maillot yooyu noonu di pare comme bu ñuy pas encore parce que fu mu toll nii moom dépense moom sonal xam nga Sénégal moom mooy loolu lu ma a jël de bu di ko jëndee maillot moom vraiment ma jëndee ko nag sama dépense parce que jeex guma lool. maa ngi jàmm bu baax. amateur de foot. waaw. bu baax sax waaw. Ah. Ah. naka ngay dundee ah. comme ni ñu ko daan dundee rek waaw. supporter bu baax ñaan yàlla mayaan ñu dam rek incha allah. naka gisee équipe bi gannaaw bu mu joué deux matchs. deux matchs yi ñu fubal moom dalu suñu xel tey moom dañoo bëgg ñëw ñu fubal lu leer wan ñu ni dañoo amoon ay manquant rek. ban nga bëgg ñu ñu gën a defaraat. ibbi kay lépp baax na kay am nañ góol am nañ axe bi daal moo xaw a moo xaw a kii daal moom la war a defaraat waaw mais comme kii dafa blessé woon ñëwoon na ñu xool lu muy wane rek. Euh, kan mooy sa joueur préféré. mu daal ñëpp samay joueur lañ daal waaw. tey ban nga bëgg ñu indi contre Malawi. tey ah ñu ñëw teg bal bi rek ba ñëpp xam nañ football lañ ba pare ñu gagné loolu la ñuy ñaan yàlla. score nga gis ne mën neen ko dóor. mën nañ door trois ba 4 waaw. day gérer de. mooy les gérer ñun dañuy gérer waaw. wóolu nga kon se équipe bu baax. sax. Mhm. lan nga koy ñaanal. yàlla may ñu ndam rek incha allah. ça va. waaw ah, ça va alhamdulilah soxna si. naka nga tudd. Euh, Ibnu Mbaye. yaa ngi suivre match su Sénégal. waaw bu baax sax. naka nga gisee équipe bi. Ah, ñun mënuñu dundee ay yaakaar 100 pour dañuy jël dañuy jox dañuy jox nañu jox cinquante pour cent cinquante pour cent fi ñu am yaakaar leneen moom tamit mu ñoom nag bu Sénégal boo yaakaaree cent pour cent déception nga si amati waaw moo tax moom dañuy supporter rek comme ni ñu ñu supporter chaque année mais mënu ñoo jël lépp def ko si équipe bi am yaakaar ba naan Sénégal day jóg coupe ñu dem di si waay di si werante duñ ko def. léegi yow lan question jeu moo ñu doy sax mais amuñu effectif boo xamante ne depuis équipe bi depuis deux mille sax dañuy dañuy tourné dañuy yëg année bii nii ñu ñooy fubal année ñu amaat ñu bees ñu teggiwaat ñi ani ñeneen munoo am comme tey da ngay wax argentin yi bu ñu amee équipe boo xamante ne ñoom équipe bu baax na mun nañu continuer espagnol yi même chose portugais yi même chose français yi même chose mais Sénégal chaque année équipe bu bees loolu munoo am munoo gagné équipe bu mag. bi baaxul ci sa. baax na baax baax na am nañu ay joueurs yoo xam ne ay classe mondiale lañ euh, mais joueurs fii mais gardien FIFA démb suñu gardien Gomis moo ko jël. Salimane il fait partie encore des meilleurs joueurs du monde Gana Gueye même même Paris lay football am na joueurs yu baax ku nekk xam ne dañuy compété si àdduna bi si club yu mag yëpp mais question bi du du du loolu question bi effective la ak ak équipe tamit équipe bu compétitive comme Italie dañuy ñëw dañuy ñëw compétition kenn du ko sóoraale kenn du ko jox favori favori moo koy jëli. France dañuy ñëw compét compétition mu yor équipe bu ñu ne mooy mooy équipe Afrique ñu ne duñu da nga ñëw di jooyaat li ñu dal fii nii ah, contre Algérie doo ñu match ñu finale mu ngi nii ren ñëpp ñëpp dañoo ñëpp dañoo ne mooy favori bu dóobu Portugal bu dóobu ko d'Ivoire du toog mooy loolu. daal ñoo bàyyi bu baax xel équipe bi nen leen bàyyi ñu joué rek ba lu ñu am rek. Euh, non pas équipe du équipe bi nee naa tuuti bu ñu la waxee ay yenn yëpp xamal ne su coach bi la ñuy wax ñu Sénégal ñun am nañ équipe am nañ ay ay joueurs mais amuñu coach bu ñu mën a yóbbu niveau bu ñu soxla Sénégal mënul concurrence woo sa concurrence équipe équipe africain yi wóor na yàlla dañoo war di concurrence équipe équipe européen yu mag yi. ndax kuñ ci dajal loon tey tey tey du tubaab bu dee fubal ñoom dinañ ñu bàyyi nga fubal africain yi ngay ngay fubala ñu taxaw def seen système défense système défensif suñu coach bi du xam lu muy teg day jaaxle ndax coaching la am na yeneen coach yoo xam ne bu ñu koy yoroon tey fii nii wër na yàlla mën nañ fubala ku ne ndax ay joueurs yu baax ay Sadio Mané ay Mbaye Niang mi ren wet Mbaye Niang li ñu ko defet moo moo tax kenn mënu kenn kenn woowaw ko ay Mbaye Niang ay Gana Gueye ay Cheikh Kouyaté ay Kalidou Koulibaly ay classe mondiale Sénégal lu mu manqué manqué waaw waaw kan mooy sa joueur préféré. non man nag wax dëgg yàlla Sénégal fii Gana Gueye waaw ndax petit taayam ak fulla bu mu am jom bu mu am moo tax mooy lool su fubalu sax ñun day feeñ ci ñun waaw ndax waaw. tey gis nga ne war neen mën a door Malawi. waaw war nañ mën a door mais compétition bii nii pour nga doof équipe africain yi nii ay deux day difficile de ndax gars yi tout lañ daan tout lañ daan joué mais yëpp a ñëw taxaw. nga équipe yu ñu équipe yu ñu daan xep yu ñu daan wax ay Malawi ay Zimbabwe ñooy sonal équipe africain yu mag yi. waaw waaw. Algérie kan moo kan moo ko dóor cent quarante troisième classement mondial cent quarante troisième cent moo ñëw dóor Algérie Algérie bu dóor Côte d'Ivoire bu dóor Côte d'Ivoire ay deux zéro pour mu qualifier problème la waaw Cameroun Cameroun lu mu organisé moo tax mu am lii mu am nii. waaw ndax mooy leen di ñaanal léegi lan ngay ñaan la ñuy ñaan wax dëgg yàlla ndambet ñun lépp lu ñu am moom Sénégal moo ko gënal mais ndambet la ñuy ñaan salaamaaleykum salaam ça va grand ça va alhamdulilah ci ngi sant alhamdulilah naka nga Ndaw Ndaw Cheikh Tidiane da ngay dund foot yow oui moom bon comme tout tous les jeunes suñu sport la bëgg nañu ko ñu ngi koy suivre à cent pour cent waaye nekk période CAN suñu équipe nationale euh, équipe sénégalaise bi dem naka nga gisee seen jeu gannaaw bu ñu joué deux matchs. waaw maa ngi ko uti ndam li rek xam nga ñun moom comme ay sportif lañ te bon Sénégal defe naa depuis muy joué yàgg na Coupe d'Afrique mais yàlla def na mosuñu gagné Coupe d'Afrique bon nekk na nag euh, moment boo xamante ni vraiment war na man nekk parce que actuellement am nañu joueurs yi valable pour man ko def mais euh, benn remarque rek lay am ci côté entraîneur bi surtout classement mais aussi joueurs yi seen bopp. parce que bu demee ba def classement classement bi mu war a def defe naa ñoom ñoo war a relever maintenant le defi xam ne vraiment y a tout un peuple derrière xam ne vraiment Sénégal dëkku sport la ñëpp xam nañu football mais dama gis ne lu ñu war a dóor battre ko ñafe ko ci terrain bi day day day day des loolu nag bon moo waral toujours ñuy remarqué ne match bi saa ju saa jugé ba pare xam ne am na lu manqué mais en fait bu doon te ne dafa nekk un maillon qui tourne joueurs yi xamante bal bu ko kii jotee kii moo war a laaj kii moo war a def ni bal bi dina tourner dinañu football te dinañ wan gars yi ne ay champion la ñu parce que ñoom ñëpp vraiment boobu la ñu mais bu ñu ñëwee seen réew it d'ailleurs xam naa dinañu am benn méfiance bi bañ a gaañu wala ñu xalaat bon chaleur climat et tout ça mais gëm naa ne booy représenté sa réew rek da nga xam ne sa réew ngay représenté te l'histoire retiendra quoi. gis seen jeu surtout contre Guinée non contre Guinée même bu ñu amuloon absence man gëm naa noonu lay demee parce que dafa nekk un pays frontalier nga xamante ni bon day mel ni kujje suñu biir du mën a yomb comme ni ñu ko gëmee même tey bu doon nekk ak ak da ngay gis ne du mën yomb parce que toujours ku nekk da ngay xamante sa nga tenir en main foofu moom euh, performance dina feeñ mais gëm-gëm bi da ngay joxe jusqu'au bout loolu rek moo lay mën a taxe match yu gagné match yu mel noonu mais gëm naa nag bon vraiment def nañu résultat parce que match nul man gëm naa ne ci période boobu plus que ñu am des cas Covid mu nekk cas boo xam ne vraiment bon doy na waar dina jouer ci seen mentalité dina jouer ci seen effectif kon su ñu amee benn mentalité tenir Guinée te comme li may wax rek Coupe d'Afrique boo seetloo bu baax euh, équipe bu ndaw amul waaw équipe bu ndaw amul parce que voir la Gambie contre Mali voir encore euh, Sierra woon contre euh, l'Algérie da nga xamante ni amuñu équipe bu ñu war a sous-estimer amuñu équipe bu ñu war a sous-estimer équipe yëpp leen jël au sérieux xamante ni ku nekk da nga ñëw pour défendre sa couleur kon dans ce cas vraiment une bataille du yomb erreur bu ndaw rek mën nga mën mën na tax ñu gagné la moo tax vraiment li may wax suñu gaynde mooy ñu gën a gëm seen bopp gën xam ne peuple baa seen ginnaaw di ñaan mais aussi ñu xamante ni vraiment war nañu marqué nag le pas et l'empreinte parce que loolu vraiment moo ñu manqué bu dee final dem nañu final deux fois defe naa coupe nag moo ñu manqué te comme dañuy wax Sénégal man na lu mu lijjanti am ci ndam mais lu mu ñafe da koy ñàkk man nag loolu dama bëggoon ñu weddi ko tuuti parce que gëm naa coupe d'Afrique li koy maye moom du def du ay koy ñafe gëm ko la joxe sa bopp jusqu'au bout 45 premières yi mayal li nga am yëpp li ci des na nga waraat man loolu laa gëm. d'après coach bi certes gis neen ñu bëri gis neen ne tactique gut ay méthodes yi nga xamante ne dina mën a mën a équipe bi mais pour yow selon yow li nga wax ni euh, joueurs yi seen bopp ñoom ñoo war a am détermination ngir mën a jël. waaw détermination bi moom defe naa mooy comme kuy dem euh, guerre boo xasee ba engagé wu ni militaire nga rek moom kooku dañuy wax ne fit bi ak jom ji ak ji mu fi. mais nag bu bal yi tàkkee beneen mbir la kon ce qui veut dire que tey entraîneur moom li mu war a def rek mooy sélectionner une équipe mais bu jotee mu def la classement qu'il faut classement bi et li liñ ciy xaar mooy nga xool yow système de bi nga bëgg a jouer yi ñi nga xam ne apte nañ def ko parce que doonu le même système de jeu pour chaque équipe équipe bu nekk da nga koy étudier xool ne kii nii laa mën a jouer ak moom pour ma gagner ko parce que am na ci joueurs yoo dañu gaaw am na ci ñoo dañu stable am na ci ñoo dañuy jouer ci benn système de jeu boo xam dañuy allonger bal bi ci kanam ce qui veut dire que ci sa classement ak ci préparation bi nga def ak joueurs yi yow war nga xamante ni man kii may football ak lii mooy fooram nii laa ko mën a préparer pour wàññi ko et puis bon ñu gën a gëm rek ne joueurs yi ci seen bopp ñoo war a déterminer wu. parce que entraîneur quoi qu'on puisse dire depuis mu nekk ci équipe ci équipe bi mën gis ne même bu dee am na benn faiblesse bi tam gis nañu résultat ci moom de ce kon war nañ ko mën a accompagner gën ko encourager xamante ni yombul. yombul parce que football Sénégal boom comme ku nekk sa entraîneur bopp nga yombul mais en fait jom ji daal man moom laa gis ne moom moo ñu xaw manqué mais du leneen parce que tey boo xoolee effectif bi ñu am benn équipe amul ko ci Afrique mais système de jeu bi ñuy produire da wax ne Gambie sax moo ñu gën a rafet système de jeu kon ce qui veut dire que du ci entraîneur bi mais joueur ci seen détermination ak volonté ak xam li ñu bàyyi ginnaaw xamante boo duggee ci terrain rek nekkatoo yow quoi peuple bi nga nekkal de ce la ñu am peuple ngor seen bopp bëgg a dem kanam kon de ce faut nga am courage du lion battre ñafe man loolu laa gëm quoi mais gëm naa nag bon que cette CAN là vraiment quoi qu'on puisse dire dugg bi métti na mais gëm naa ne ndam li ça sera de notre côté incha allah rabi. deux matchs yi c'était pas convaincant bi yoon match ñu war a euh, Malawi 16h bu jotee euh, ñu amaat tamit retour ku ci mel ni Kalidou Koulibaly gànn na ñoom Edouard Mendy yëpp mën nga gis ne changement dina waaw changement mën nañ ko xaar ci côté boobu parce que ku gis système nañ ne peuple bi vraiment des na kontaan. mais vu résultat yu ñu am itam man nañu am yaakaar mais en fait euh, li ñuy ñaan rek mooy man daal ñu gën a endurant man loolu ñaan xamante ni bal bi bul xaar sa adversaire parce que comme dañ leen nommé meilleure équipe d'Afrique bul ñëw mukk dajeeg équipe ne man vraiment kii damay bàyyi xool lu mu indi wala nangam indil sa système de jeu jouer ci sa plan dem ci say stratégie gëm ne quel que soit l'équipe man je vais gagner man loolu laa gëm ànd ci ak détermination Kalidou waaw bon bu ñëwee nekk fi mu doon nekk taxaw gëm naa ne dina renforcer un peu milieu bi parce que boo xamee li nga bàyyi sa ginnaaw dina xam nga xam fi nga bëgg a dem mais toujours bu dee yow da nga xamante ni yaa tu as boo xam ne vraiment maîtriser gu ñu mbala euh, collectif bi ni mu war a demee demul mën na tax joueurs yi au lieu ni ñu war a monter dem ci kaw du ñu ko man def parce que toujours dañuy bàyyi xel derrière bi te toujours man système de jeu bi may bëgg ñu def rek mooy ñuy demandoo di di dikkandoo loolu nag moo manqué parce que joueur da ngay gis nga perdre ballon taxaw jeu collectif boobu dafa des. moo tax nag vraiment li may ñaan rek mooy que ñu gën a xam ne daal Sénégal yi daal ndam la ñu soxla quoi bu dee nag ay dem quart de finale demi finale moom gëm naa ne du gisuñu fi lu bees quoi parce que loolu moom vraiment taamu nañ ko voilà voilà. merci. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va sëñ bi. sant yàlla bu baax ça va. ci jàmm. maa ngi si jàmm alhamdulilah. ma fekk la nii nga toog sol sa maillot surtout nag diis bi yaa ngi dund kànd waaw comme ay Sénégalais lañ ay patriotes lañ dañuy supporter comme. waaw comme tout le monde voilà. naka nga gisee équipe bi gannaaw bu mu joué deux matchs premier match bi nekk contre Zimbabwe ñu door ko certes mais difficilement deuxième match bi nekk aussi contre Guinée ñu nul ko naka nga gisee jeu euh, ah bon xanaa di doole di leen encourager ak motivation mais gis nañ ne résultat bi ñu def baax na par rapport ak bu ñu xoolee yeneen grande équipe yi ñiy tëkkale Sénégal yëpp. ñi ñun am nañ 4 points suñu amaguñu def suñu premier match gagné nañ ko malgré metti woon na mais gagné nañ c' est l' essentiel points yi gagné nañ ko deuxième match bi am nañ match nul pas mal un point baax na ak actuellement ñu nekk deuxième ñoo premier bi ñoo tolloo ku ne 4 points la am suñu troisième match duñ defee match nul sax mun nañ ci génn pour man c' est c' est bien quoi alhamdulilah. gisoo ne changement wax naa mën a am vu que presque tamit mën naa wax la moitié des sénégalais euh, nee neen jeu bi c'est pas convaincant est-ce que yow loolu nga gis wala. ah mais Sénégal moom comme comme comme ni ñu koy waxee rek duñ demoon ci euh, ci ci gouvernement bi nga dégg ñu ne ministre bi lii ministre bi lii directeur bi lii député bi lii ñun sénégalais ñoom habitude boobu di saboter. te duñ am duñ duñ duñ xool lu baax li quoi dañuy saboter rek dañuy saboter généralement alors que match bi bu fekkee amuñu liñ bëggoon it l'essentiel bi am nañ ko mooy gagné nañ deuxième match bi gis nga liñ manqué ci ay joueurs mais am nañ match nul loolu baax na mais duñ jël ne lépp lépp lépp dafa bon non non non bonul Aliou Cissé dafa sélectionné les meilleurs joueurs sénégale yi nekk à l'extérieur ñëpp la sélectionné amul ku des nañ génnee ne kii lañ waroon jël te jëluñu ko amul bu nekkee défenseur les meilleurs défenseurs nekk ci kilo yu mag yi ñëw nañ milieu terrain gardien attaquant ñoo fi nekk li ñu am lañ teg le reste mooy ñu ne seen ginnaaw di leen pousser ñu dem mais duñ leen pousse ñun sénégalais ñoo ñun ñoo lay jiital ba pare di la faqasal booy ay xale lañ dañu am ay famille am ak njaboot dem représenter Sénégal ñu nekk fii Sénégal toog suñu salon di yor suñuy commandé di zappé taal suñuy ventilateur wala suñuy climatiseur di naan suñuy boissons yi lekk suñu gerte caaf di saboté loolu doxul loolu doxul buñ mënul dagg suñu billet dem Cameroun supporter leen le minimum mooy buñ toogee fii ñu leen di encouragé booy yi xam ne sénégalais yaa ngi Sénégal mais ñi ngi ñuy encouragé mais du nekk fii di leen saboté dañu ay famille di leen déstabiliser amul amul sens nañ leen bàyyi ñu dem parce que man li man man li na ci man man leer na ma ne moo nekk ci joueur yëpp boo yëpp koo ci jël bëgg-bëgg bi ma am moo ñu indil ñu coupe bëgg-bëgg bu ko raw moo ci am booy dañuy def ay sacrifice bàyyi seen club yi di gagné ay milliards foofu mais dañuy def sacrifice ñëw Sénégal pour représenter couleur nationale pour gagner quelque chose niñ ko bëggee ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg fuuf mais duñ leen jiital nekk fii toog di leen di leen déstabiliser amul sens daal pour man nañ leen bàyyi ñu def ñu mën ñu ngi koy def nañ leen ñaanal encouragé bu match bi baaxul sax ñu ne leen booy match bi baaxul mais prochain match def leen match bu gën a baax mais buñ tax booy xamuñu dara dañu waroon jël kii dañu waroon jël non alors man man ma gëwma loolu. mais ñi ci bëri waxuñu ne joueurs yi ñoom ñoo mënut mais ŋàññ bu ñuy ŋàññ Aliou la parce que nee neen ne deful lu mu war a def. mais Aliou Cissé deful lu mu mës a def histoire du Sénégal barki dem maa ngi koy dégg ci Ablaye Diaw parce que lu ci bëri fekkewu ma ko mais l'histoire du Sénégal mësuñu a ay Aliou Cissé boo demee ñëpp gis nañ gis nañ coach yi nekk ci club yi résultat lañ leen di laaj laaj ñu leen ay technique de résultat lañ leen di laaj <coughs> Mourinho bu deful résultat dañ koy dàq te ñëpp xam nañ ne ci ci le meilleurs entraîneurs la bokk yaa ngi koy gis ci club yi bu demee ci club bu deful résultat dañ koy dàq parce que duñ ne dafa aay moo tax ñu bàyyi ko fi déedéet Aliou Cissé mi ngi def résultat histoire du Sénégal amul coach bu fi mës def résultat bi fi Aliou Cissé def mais résultat bi muy def mi ngi qualifié ñi actuellement Sénégal moo nekk meilleur meilleur euh, meilleure équipe d'Afrique ci classement FIFA bi nekk tête de li bokk équipe bu étranger yu bëri moom moo leen jiitu ay tubaab équipe yu mag yu bëri équipe sa équipe Sénégal moo leen jiitu ci classement FIFA bi loolu bu deful résultat du ko am tubaab bi dañoo xam Aliou Cissé ba koy neexal ñun ñoo mel noonu ñun ñoo mën bëgg saboté mais Aliou Cissé ngi def résultat bu baax nañ ko motiver encouragé ko bàyyi ko mu eggale liggéeyam su mënul woon dara jël moom ci boppam jógee na fi Aliou Cissé ba mu fi nekkee ba léegi mas nañ am 4 buñ qualifié bu baax alors lan sénégalais yi coupe la ñu bëgg tamit parce que soxlawuñu di dem rek te duñu jël. Aliou Cissé joxewul coupe ak volonté na booy volonte wu ñu nekk seen ginnaaw ñaax leen di ñaan coupe bi ñëw mais duñ toog naan Aliou Cissé indi ñu coupe far force coupe bi teguñu ko fa pour Sénégal teguñu ko fa pour Mali dañ ko teg pour nation africain ku ku que le meilleur gagne mais duñ fi nekk ñoom tubaab bi nekkuñ fa jox ko coupe de. ah nañ ko ñaanal rek bàyyi ko mu def liggéeyam quoi mais buñ toog di saboté saboté moo baaxul nit gis nga nit doo ko yónnee di ko saboté sax moom moom buy nekkee ci yoon bi di dem xelam du nekk ci fa mu jëm ne xam lu muy xalaat de retour ma ñëwee lan laa fiy fekk su ma demee lan lañ may wax alors que noonu dañ koy ñaax ñaax boo xamante ne moom ci boppam dans sa tête dana gëm ne su demee da koy jël mais toog fi demagul sa Aliou Cissé bu ñëwee bu ndul coupe bi dañ koy dàq Aliou Cissé xamul dara dafa waroon jël kii dafa waroon jël kal ban jour la fi bàyyi mu waroon jël booyum jël nañ def lu ñu war a def rek li ci des ñun ñu toog fi def lu ñu war a def leer na loolu leer na léegi kan moo nekk sa joueur préféré ci <coughs> actuellement nii euh, sama joueur préféré moom ci équipe bi nii dina actuellement daal mun naa ne Cheikhou Kouyaté quoi parce que xam naa ne li ko nit ñi di wax lépp mais teewul bu duggee ci terrain bi dina ware de sénégalais la patriote la c'est un bon capitaine malgré gars yi koy wax lu ne nag mais man sama joueur préféré la. parce que dernier match bi moom moom moo ko moom. non bu dul dernier match Cheikhou Kouyaté mosul ci terrain man pour man c'est le meilleur joueur sénégalais actuellement parce que dafa am loo xamante ne dama ko bëgg ci joueur te dama ko gis ci moom waaw.